asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sant donc euh, di tàmbali nag di vraiment euh, rafetlu euh, teewaayu monsieur le ministre monsieur le ministre Matar Ba monsieur le maire de la ville de Fatick di suñu mentor di suñu xarit di suñu mag di suñu lépp donc ñëw teewee bés bi ñu ànd kaax moom def le tour donc. def le tour un peu stand yi xam ñaata spécialité moo fi nekk donc euh, vraiment di wax ni lii dañ ko def si turu ASC Pastef donc euh, comme ASC bu nekk dañ ko taamoo di def donc dañ jàpp ni nawetaan du football rek dem ñibbi am na yeneen activités yu ñuy def mel ni social mel ni leneen donc lii nag dafa bokk si activités yi nga xam ne dañ ko jël ren def ko pour euh, vraiment euh, apporter un peu de soulagement à, à, à donc dëgg la ASC Pastef moo ko initié en relation ak Sine Santé mais pour population Fatick bi yëpp la donc biñ ko defee nag ñu am si vraiment donc suñu ndigalu kilifa di monsieur le maire mu ànd koox ñun tamit bàyyiwuñ si dara donc ñu ànd koox moom euh, mu nekk donc mbégte si ñun donc di doon kontaan si ñun vraiment ñuy remercier waa Sine Santé di remercier population faticoise bi yëpp nga xam ne woon nañ en masse di remercier waa quartier Pëlga sama ASC ASC Pastef waaw donc euh, man moom mun naa ne wàññi nañ ñu bari bi ñu ñëwee fekk nañ fi nit ñu bëri sama matin à partir de huit heures neuf heures nit ñi ñu ngi fi woon à partir de dix heures euh, nit ñi bëri woon nañ mais bon xam naa nag mun ma la wax ñaata ñu def mais nit ñi bëri woon nañ trop donc euh, vraiment mu nekk satisfaction donc euh, xam naa ni tamit euh, pour xam ñaata nit ñoo fi teew boobu ba léegi dem leen di bàyyi rek après ngeen waxtaan ak Demba Gueye moom mooy coordonnateur bi moom dina leen mën a defal benn billan à mi parcours. donc ñu ngi leen di remercier bu baax donc comme ni ma la ko waxee woon sànq si nasaraan rek man bon benn kilifa yi nii toog moom su ma ko waxee koo collègue am la te en solidarité donc gouvernementale. bu ko nee Fatick ndax moom du du du du maire Fatick rek moom day maire fépp donc euh, ministre la donc euh, def euh, mën na ko mën na porter plaidoyer man tamit donc en tant que doomu Fatick dinaa dinaa dinaa dem dinaa ko wax tamit kilifa gi nga xam ne moom laay liggéey donc concernant nag village artisanal bu bu Fatick donc mooy li mu lay wax liggéey bi des fois dafay day gudd parce que dafa am ay procédure marché noonu la donc dafa am da ngay def procédure da ngay di nga lancé di nga def avis de passation am na avis d' appel donc ouverture dafa am ay délais yu bëri donc su fekkee ni ministre moom ko wax bon je sais que xam naa ni loolu c' est lu lu ñu war a mën a réaliser la mais dafa am direction boo xam ne moo koy toppatoo exclusivement du sama direction donc mooy li mu la wax rek donc incha allah nous on va on va essayer de voir buñ ci amee lu ci mën a ma dinaa la woo sax ne la kaay indil micro bi ñu waxtaan si ma waxaat la li ma wax la lu leer loo xam ne ni moom di nga ko a téye mais comme ma ko waxoon tey moom président ASC Pastef moo fi toog indaale wu ma dossier ministère bi <laughs> donc euh, vraiment di leen sant di leen gërëm. mooy andi ay spécialiste pour ñu faj doomu Fatick yi nga xamante ne ñii seen loxo jot na seen gannaaw ñii seen loxo jotu seen gannaaw ku am doom ju mel noonu nag wala am rakk ju mel noonu war nga koo fësal war koo bëgge Sénégal il faut ñuy jaay lu baax li nit ñiy def li garaaw mooy Sénégal léegi lu bon rek la ñuy la tas te nit ñaa ngi def lu baax mu ngi koy def géey mii lii du lu bees 2012 def na ko fi chaque jour mu ngi teg pour mun a def consultation gratuite te nag jarta xeeb gis naa fi ñoo xam ne dinañ seen i bëñ am na ñoo xam ne gis nañ ci ñoom loo xam ne buñ ci anticiper problème cardiaque du ñu ko am mm. am na problème urologie am na fi lu ne gynécologue yaa ngi fi loolu lépp boo ko bëggoon a defi da ngay fay kon suñu ko defee gratuitement ñi ko def war nañ leen delloo njukkal au nom de la population moo tax ma ñëw ba fii ñëpp xam nañ ne quinze heures war na maa fekk Dakar Arena parce que fukki pays ak juróom-ñaar ñu ngi fi ñu am compétition africaine judo mais mënu woon bañ a ñëw ba fii teewal fii waa Fatick ba pare dellu Dakar loolu li muy wane rek mooy respect bi ñu am ci ñoom ak cër bi ñu leen jox ci seen taxawaay su ñëpp defee ni Fatick dox. defe naa ne Fatick li koy doxal du ndomba tànk yéene la ak jox sa bopp sa sa sa askan moom la ñu def moo tax ñuy jaay produit bi nga xamante ne moom la def suñu loxo tey teewal ko fi sant ko gërëm ko. waaw xam nga président Macky Sall ñëpp xam nañ ne li mu defal artisan yi kenn mosu ko xalaat sax am président di ko xalaat ñaar fukki milliards ak juróom yu ñu dégagé te bokk ak yeneen programme yi nga xam ne dafa touché artisanat euh, loolu président Macky rek moom moo ko mos a def en tant président de la kon xam na gëddu artisan yi xam nañ ne dëkk bi mënut a dox sans les artisans moo tax jàppale leen day doon lu jàddu moo tax ñu am programme boo xamante état du Sénégal am na ko ministère de l'artisanat ñoo ko yore Covid bi tax na mu xaw a am ralenti mais chef lieu de département yëpp dinañ am village artisan Fatick ten village bi nga xam ne village régional la war nañ ko renforcer defaraat ko waaye li ñuy wax mooy état li mu mën mooy tabaxal la andi lay jumtukaay mais doxalin wi ñi ko yor ñoo ko war a yore. ñoo war a proposer lu tax ñu war ko def ñu mën a am ay formation mën a def loo xamante ni dina tax bu ndaje amee waa Fatick bu ñu ñëwee produit yi ñu andi mën a am cër loolu nag moo tax jàppale bi mën ta dakk ñun dinañ gën a taxaw seen wet jàppale nañ éleveurs yi sax pour ñu def foire bu mag ci fan yii di ñëw loolu yëpp bu ñu koy def parce que ñi fi ne di góorgóorlu dañ leen war a gën a jàppale pour que li ñuy wone bu ñu ko wonee seen i naataangoo ci yenn région yi du ñu des bokk na ci liy jaay aussi la ville de Fatick li mu tekki rek mooy ñoo bokk Fatick gis nga ay nit bu ñu bokkee dëkk quel que soit parce que nit ku ne am na ambition kenn mënul tere nit mu am ambition waaye loo gis xel moo koy def la politique c'est de l'intelligence tey dafa am ku ñu àndal mooy suñu kilifa dëkk ci dëkk bi lii Fatick nekkul Kolda nekkul beneen dëkk Fatick c'est la ville du chef de l'État c'est la ville de notre patron en matière politique kon lu ñu mën a xëccoo xëccoo bu ne siffler fin de la récréation mais ñi dégg ndigal yëpp dañuy ànd ci li nga xam ne moom la wax loolu biram nga tudd mais ñi responsable yëpp ku ci ne tey li may def mën nga ko wala nga mën lu ko raw mais ñëpp fàtte nañ seen bopp pour l'intérêt de Fatick joxante loxo pour le président de la République ku mën loolu nag mën a jël taataan xelu nit ñi parce que ab maire xelam doylu conseil municipal xelam doyul képp ko am xalaat am xel boo andee li nga indi dinañ ko jéem a doxal lépp nag caf waxtu wañ koy doxal ak nu ñu koy doxale donc le programme de Birame Faye c'est un programme intéressant Je ne vous dirai pas que tout sera mis en œuvre à 100%, mais on va fondre tous les programmes et toutes les bonnes propositions pour aller vers les populations et les soulager. loolu mooy liggéey bi nga xam ne moom moo ñu xaar may bëgg nag ci li nga xamante am na di masawu ñi nga xamante ne peut-être xaaroon nañ ci seen bopp gisuñu seen bopp ci yëf yi arbitrage moo mel noonu booy arbitré day métti euh, day day sa xol day jeex sax parce que da ngay am ci ay nit yaakaar du ci xej waaye li ma mën a jàpp ci liste bi mooy. yàgg naa di gis liste ci commune Fatick waaye list bi ma gis Fatick war na cee am yaakaar parce que kilifa yi bëgg Fatick yëpp a ngi ci mais ñi borom xam-xam yaa ngi ci kon dinañu fexe ba ñooñu yaakaar bi ñu am ci ñoom du tas parce que ñoo xam ne dañu bëgg Fatick la di fi def te nekkuñu conseiller kon bu ñu nekkee conseiller day tax ñu gën a góorgóorlu mais du ñu toog di toog Ndakaaru ne du ñu ñëw conseiller booy xool ñi ci ëpp sax nekkuñu waa Ndakaaru am na ci ñu bëri waa Fatick lañu kon li ñu dajale moo ëpp doole suñu jëm yi kon bu ñu ko téyee rek dina dinañu gunge population bi am ci ñun yaakaar. waaw loolu nag xam nga boo jaaree fenn dëgg jam la fa booy dellusi di nga sol dàll yu baax 2014 dund nañ loo xamante ne métti na ci ñëpp waaye li tax ma ne 2014 du 2000 du 2021 du 2022 mooy profil yi ci ne xam nga ku mel ni Bamba wala ku mel ni. grand Ibou Soukandel ku mel ni Biram ku mel ni man ku mel ni keneen xaaruñu conseil municipal wala dara xew Fatick pour ñu ñëw fii dañ fi ñëw parce que fii lañ dëkk ñu ngi fi ku nekk a ngi góorgóorlu ci li nga mën ak say kon ñu ngi jàppate dara xewul kon ñu mel noonu bu ñu dajee ci liggéey dinañ ko def ni ñu ko war a defee parce que on est au service de notre population te jox nañu suñu bopp population bi moo tax dina jaral ku ne bu waxtaan jotee ay décision jot nga ñëw taxaw